amee ay mbaa sonoo leen ci yoon bi bi ngeen e di ñëw. non non yow ci yow di sonn. tey dama waroon génn sax parce que dafa bëri woon ay rendez-vous yoo xam dama ko waroon dox. Mhm. bi ma woowee laa añile lépp. Mhm. xam nga tamit du yoon ngay ñëw fii may génn. waaw mooy li ma wax rek nee la bu jënd soxla Dakar ku daanu. mais bu ma da am koy andal sax man ci kaw daa di VIP. yow fii rek baax na. kii sa sœur wala sa xarit la. sama xarit la mama. waaw. Euh, maman ça va. waaw bien maa ngi si jàmm kay. dalal ak jàmm fii sa kër la. <laughs> Hmm, am na jëkkër. non non amagul jëkkër. waaw yàlla na yàlla may ku baax waaye. amiin waaye. Euh, mais ça va. waaw naka affaire ci kaw. yaa ngi a rafet rek. déggal loolu. <laughs> mais yow mun nga dawal. maa ngi mais pareegu hmm. mm-hmm. ma. ma ba nga mun rek. nga koo dawal. ngay bàyyi bu mën parce que dama lay bañ a jox oto bi mbëkk la wala nga mbëkkee loolu daal ciy bañ du dëgg léegi boo jotee sa permis rek xam naa ni tabaski soreetul mhm. ñëw na ba pare quoi te xam naa yéen jigéen moom événement lu mu leen jaral mhm. ba tax na tey dama am bu ñibbee boo ñibbee nga jël sa temps mhm. defal ma bilan yére fu mu gën a seere daal fu mu gën a seere bu ma yëram la góor yomb ah, góor dëgg bilan sax nag xale góor yi dañ ko defatu ko baaxkat yaa ngi ci dëkk bi de jaxato de nit guddi yi dañu koy bañ waaye yaay jaxatu jërëjëf weex nga torop waay sa xarit bi nag moom it bu demee na def bilan ut jëkkër de na tudd jom te sant saal ah tamit kuy ut jabar tamit mm. tudd kajjaa sant bari moo tax nag chéri xam naa dañuy ñëw dem parce que bilan bi xam nga il faut ma jënd ji ko nag. ça va nii rek def. waaw gis hmm? nga de. vraiment kontaan sa xarit. sama xarit ma ngi xam nga boroom day ju liggéey ku ko yéene fande day reer ba desal baa mu joxe ñami mbaam. du dëgg. neel sa yaay merci nag. ndax liggéeyu ndey. day feeñ ci milieu. ah la ko wax. ndax kooku nga xam ne mooy sa copine la xaw ma sa gel. waaw la tey bëggul la suba. waaye yow noo xamee ni kooku bëgguma. ku ko nee naa lay dajale ay faram. maza zido doomu nday bi befa ka jabar mbaran gi mi mbaran ci dekk bi fi la fekk bax ñeneen ñe mom mënuma leen lim ndax dafa bari c'est pas possible yow looy ka ñaa ñame def motax ma def déplacement wax lako balaa leen di ci xaw ndax nee naa la sa kër gu yànj gi macha allah te jigéen daagu fi doom jooyo fi man nag ma ma ma ma gis loolu noonu nga xamante ne nii day ñëw foofu noonu ma daal di ñëw wax si la ko rek du dëgg. waa léegi loolu ciy pexe. ah du siy pexe nee naa la kuy koo wéetal ak kuy fu muy fanaan te jël buntu du leen boole te yaakaar naa ñun ñaar waruñoo boole. man dama la kii daal dama lay sentir bu baax sax. yéen da ngeen mosuñoo complot kon bu ma doon complot ñu ànd ak moom man kese maa ñëw. parce que hmm. man yow laa gën bëgg Kaja. <laughs> yaa ko dàq. maa la ko wax merci yaa ko sax sanction. merci beaucoup waay. yaa ko gën a sax jigéen ñaar yaa ko dàq. damaa jongo ba ma énervé ba rey samay noonu. waaw léegi nag ni muy demee suma diggante ak yow. man xale bu saf bu mel ni yow laay wër dangaa saf ba ne saab barki yonent bi. keroog da nga doon naanee zi bi rek laa xam ne. mbir am na ah ndaanaan nga ba tax na am na ay paa yu toog suñ koñ bi noonu amuñu liggéey boo bëggee man maa jënd guro indi ñu may ma ndax ma mën laa togg si togg tëbëg si nag waaw looy xaar ñëw jaagar jaagari def ko mu jeex bébé xoolal li may xaar bari na waaw jàppal ça va noo def. ça va bien. Diome lay wut fii. Débé yaa jantal nag. eh xam loo bëgg nga téye sa loxo ta nga réglé dégg nga lu ma la wax ok. Mm. xanaa booy bébé ba nit toog nga war a mën a réglé. ma sa morom de yow gannaaw osé nga laa la wax. moom yow xanaa sax boo duggee si kër jàmbur am audace ba bëgg a de sa daal si biir saar wala kan jàngalu ko daa si mi daal si. guddu eh, ne xam nga lu bëgg laajteel ki nga toogal man la kan. bébé waxal ak kii man la kan nga ne lan ya? <laughs> yow garde loola ci salle bi ci souf nga yéeg ba ci kaw tok ci salon bi ci kaw ma wax nga tok na da ngay da ngay da ngay dalal sa gal et puis yow sama yeri nga ko yéen ki yow sama yeri nga sol foo ko jëlee <laughs> ligne ban <laughs> mais tu te fous de moi ou quoi Ata jekk ma xam ba nga takkee sen africa bi la xam sa bopp af af dox yefi afrique nekku ci yow eh, Diome kan nga yeb eh, eh, laa la sant toogal ci suuf xaar ma ma ma voyage une semaine nga yaakaar ne dootuma ñëwaat. quand ça n'est pas là daal. les souris ah, soxna si jërëjëf xam nga loo bëgg. nga jug nga sol say daal nga dem. ah du yombee noonu de nee naa la sëñ bi man li ma yëkkati lu nekk dafa am doole. te ba tax na moom mi comme ko gardien day wàcc suuf abal ma ñun ñaa ñu jàkkaarloo. ndax nee la. ku yut fu mu ko wéetale ak ku yut fu muy fanaan tëjal bunt du leen boole. yaakaar naa jàkkaarloo. ma ak yow. loo bëgg. ma ni ak yow sàndee. man duma sam morom. Hmm. dégg nga lu la morom boo falaale rek sànneek nga uti ko dinaa dajale ñaari fenkat ci sama kër et puis yow jógal. te yow waaw mais. ak kii yow li nga sama bagage dom aussi nga jël ko takkaale ko sa loxo yi papa papa xam nga sama xarit la te monsieur loo ci xamul non mu jël li taxawal jugal taxaw ma la jugal. jugal taxaw monsieur nga baal ma balaa moo jug. jugal loo ci xamul fii la ànd ak sama benn xarit décortiquer la ko doon def. déedéet yow bàyyi la. décortiquer la da doon décortiquer. bilan la ko def lo ci tëbëg si bi nee na 200000 la koy jox man may may na ma 100000. nee na oto day day ma may oto. ma ne ko man mënuma conduire. yow sa salaire matul 200000. yow boo mayee sa salaire seen waa kër kër gi ca dëkk ba def. <laughs> waaw jugal taxaw jugal jugal taxaw. waxuma ko lool de patron. waaw jugal taxaw yow gis nga li nga sol ci kaw ba ci suuf ah yow sa salaire sa salaire bu na ko yokkaanoon quatre fois mënul jënd li nga sol. doxaan moo tax ma bàyyi la fi sumil sama yére sumil sama yére benn par benn. defal lu gaaw sumil sa eh, demul yaa ko fi dalal. day fekke lépp sumil sama yére yow li nga sol yëpp xëy xamoo sax li nga sol. deux cent sama yére. naa yàgg dajale lay doon. <laughs> waaye mënoon bi bu ma la rusuloon dama koy dindi sumil tubay ji. sumil sama tubay. et eh, sumil lii waay ah sumil tubay. sumil tubay ji. loolu kon njit bu bàyyi bi yow. yaa booy ooy. soxna si <laughs> da aneh, neex. ah yaa fàtte diw. voilà. déedéet déedéet bul toog xam nga nooy def jógal moo la jógal. teel ni fa nga ko jëlee woon na nga ko fa delloo dégg nga ma. ànd ak sa gan ngeen génn. <laughs> donc du génn. yéen ñaar ñëpp ay dem gaaw leen. waaw mais ñii yëpp aatuñu. nit laay <laughs> Oui, monsieur, très hey, bien fait. Ouais. Hey, Adeline. Monsieur. Comment Dis-le. Dis-le.